jërë ngeen jëf ci teewlu bi mbokkanteer internet yu 5M TV Sénégal génnu àdduna ki di mbër boobee ñu doon woowee Fourrière nag turam dëgg di Serigne Fallou ñu gën koo xam ci Fourrière moom nag dafa daal génn àdduna ndeke ni démb mu fekkoon baax foofee ca Grand Yoff nag moom mu doon wane rek njàmbaarteem jëm ci làmb gi ndax ñu ni juróom-ñeenti combat mu amoon yooyu yëpp da ca amoon ndam. moom nag ginnaaw gi nga xam ni rekk doon bëre ci làmb gi ñu ni nag ma nga faatu ndeke ni démb moom nag Serigne Fallou ñu gën koo xam ci Fourrière daal dinay faatu kon ginnaaw rek julli tàkkusaan gi moom mu jóge foofee ca Casamance ñu ni ci màggal gi ñu weesu ginnaaw gi ci la dem ca kër maamam ngir nag ndax bu fa bëggoon rekk daal di defar nag euh, lii di këram foofee ca Mbàkke moom sax ci diggante boobee kon ñu ni rek feebar dab ko ci ci la rek daal di euh, génn àdduna bu ñu sukkandikoo ci saa Touba mi ko xamle kenn ca ñi nga xam ne jege woon nañu ko loolu euh, ñu koy ñaan rek yàlla suñu borom bi daal di koy xaare aljanna ginnaaw rek bi ñuy waajal kon komba bi ci diggante Modou ak Siteu ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi mu mel ni benn boss de bison lañu ñu daal di gis rek ci ginnaaw kon kii di sita maanaam rek kon ca ginnaawam mu mel ni ab tërgën bu rëy. lañu gis ca moom nag loolu tax nañu bare di ci àddu di wax ni rek ab feebar la wala lan moo ko daal di waral Ibrahima Faye ñu gën koo xam ci turu Buzz moom nag nekk directeur bu lutte bi nag daldi di nay xamle lutte TV. daal di nay xam ne ni loolee nag moom lu ci ëpp day wane kon entraînement yu metti yi nga xam ne kon mbëri dinañ ko amal moo waxal kon seen yaram yi di def ni mu mel mu mel ne kuy futtu. tax na mu xam xamle ni nag loolee itam rek mën na daal di soppi lu bari jëm ci wàllu physique ak itam rek indi leneen loo xam ni ay rek maladie la maanaam ay feebar la jëm ci moom tax na mu ni la cay topp dana doy waar loolu tax na mu ni kon loolu dañ ci war a bàyyi xel.